dal leen ak jàmm ba kenn tax na ci yaatal vision yi di ko yéen ci la gën a fees xol bu tàng jiir bu naqari moom la amee moom Mame Boye Diao ginnaaw ay kàddoom yoo xamante ne bii nag yëkkati na ko ni tey jële ginnaaw président Macky Sall kàddoom yi nga xamante ne bii nag moom mii di njiitum réew mi yëkkati na ko moom it Mame Boye Diao daal di ko fasey sofal daal di xam ne nag ni kii di président Macky Sall nag deful la ko war waaye defutit la askan wi doon xaar ci moom muy que ne nag mu daal di jàpp élection yi nag ci date bu gën jege loolee nag tax na ba moom Boye Diao mii nag daal di génn def conférence conférence de presse di xam ne nag ne mi ngi ñaawlu bu baax baax nag li nga xamante ne boo di taxawaayum jiitum réew mi nga xamante ne bii moo di président Macky Sall ginnaaw bi nga xamante def na nag déclaration wala nag mu def benn point de presse jàkkaarloog askan wi di wax waaye taxul benn yoon mu wax ci li nga xamante ne bii conseil constitutionnel daf kaa xaatim daal di koy xamal nag ne ko élection yi dañ ko war a daal di def nag ci lu mu gën a gaaw waaye waxu ci nga demut mbaylaar nee na daal loole métti na ko lool te it jàpp na ne njiitum réew wareew te doxe noonee loole nag mi ngi ko teg ci kaw ki nga xamante ne bii moo di président Macky Sall mi nga xamante ne moom moo toxal élection yi ci mais vingt cinq février bi de daal di koy yóbbu nag ba fukki fan ak juróom muy 15 décembre bi nga xamante ne bi moom la ñu dëgmal Mame Boye Diao daal mi ngi xam la nag ni àndul benn yoon ci li nga xamante ne bi moom la président Macky Sall def waaye nag mi ngi koy ñaawlu ba baax a baax ginnaaw nag bi nga xamante ne bi waroon naa mën a létt askan wi wala mu firi leen loolee nag te def ci benn yoon loola daal tax na ba Mame Boye Diao daal di génn yëkkati ay kàddu yu mel noone teg ko ci ki nga xamante ne bi moo di président Macky Sall